mbokk gis nga noonu le discours de Guy Marius Sagna isi dans le Fouta et c'est c'est très important ñu wax ko parce que vraiment nag euh, nañu continuer di wax ci programme di wax ci ay proposition mais ce débat sur l'ethnicité lu soof la <laughs> comme je l'ai dit loolu moom loolu moom franchement amul place am ci géopolitique bi donc vraiment euh, nañuy euh, débat ci idée ils ont leur programme critiquer leen ci seen programme critiquer leen ci seen i gis-gis mais quant ay ñun ñoo dëkk fii wax ci lii laa kele la loolu moom wax bu xeebu la te defe naa comme politique bu koy wax itam euh, da ngay tuutal sa bopp donc vraiment bu ñu dem ci ci ci xeetu wax yooyu ay mbirum ethnicité nga la waaye nañ ko génne politique. Et ce qui se passe actuellement ici dans le Fouta, dans le cœur du Fouta, ici à Ourossogui, ça prouve nettement que les Sénégalais dépassent le niveau boobu Euh, parce que tey ñu ngi fii euh, en plein euh, société ci bi ngeen gis. Euh, mbooloo bi génn Basiru rek keneen doon leneen seen yoon nekk c'est l'essentiel mooy le Sénégal gi nga xam ne moom la ñu léegi xëy na ma làkk ak yéen tukkuleer ndaxte fii suñu kër la waaye nag dafa am lu mu wax titre foncier amu fii fii ne doo ko bandul amu fii fii naafulaar amu fii fii ak ay sénégalais kese ñoom ñoo fi am ñun lépp ay sénégalais lañu amul diine amul diimaami loolu yëpp amu ci waxee ba pare bëgg naa ngeen dalal suñu président bëgg naa ngeen wax ko bienvenue bëgg naa ngeen wax ko hayoo bëgg naa ngeen nuyul ko ni ngeen ko nuyulee woon président Ousmane Sonko ci législative bi kon nag comme noonu ngeen ko defee woon baaxoo ko kon ma bëgg yéen ñëpp ngeen ànd ngeen ne ko hayoo maa hayoo hayoo ok gis ngeen noonu la population de Ourossogui qui souhaite la bienvenue au candidat Bassirou Diomaye Faye. ngeen ko tànnal daf ko xool ci lépp dafa xool ci Basiru bi ñu déglu ayo ayo ayo bi jot ayo bi jot ngeen nangu ngeen ne ngeen ko hay o jaɓi o jaɓi hay o moom o jaɓi o weltima o weltima yenne ne feewi machallah li ma bëgg a wax rek mooy kii di Bassirou Diomaye dañ ñu ko tànnal dañ ñu ko dénk te ki ñu ko tànnal musu wor ki ñu ko tànnal musul juum ki ñu ko tànnal musul juum te du juum daf ko tànnal te ko seen loxo waaye nag moom mu itam moom mu ñor itam wane loo xam ne kenn suñu xalaatu ko woon mu ñëw wane ni nekkati séeréer dina nekk buuru tukulóor nekkati séeréer dina nekk buuru tukulóor nekkati loolu mën na nekk nekkati loolu mën na nekk waaw moom loolu la wane ndaxte nag boo xoolee Basirou Basirou ci sikkim bi mu ngi leen Basirou ci sikkim bi waaye ne leen jomaay ci jom ji ne leen jomaay ci jom ji mu ngi leen jaaxaar ci ñàkk jaaxaan bi jaaxaar ci ñàkk jaaxaan bi fay ko ci taxawaayam wane ko ci campagne bi wane ko ci yéeneem kon jumaa dane dañuy jub jubal jubbanti képp koo xam ne caxaan kan dañ lay gën a rëmi. jumaa mais ñenn li ma doon wax léegi ñenn ñi nga xam ne. Euh, politique dañ ciy dugal mbirum waaso mbirum xeet wax jooju. non kooku day fen man mii wolof laa man Touba laa dëkk dëkk bi ëpp ño dëkk bi moom ëpp appelé wuñ fa dara gis na gis na bi mu ko waxee. moom li ci gis. loolu bi mu ko waxee bu mu xëyee suba da koo weddiwaat ne waxu loolu daal di xam nga ne fii maanaam électoral yi maanaam fii pulaar amu fi séeréer ñëpp ñoo bokk yam fii si wër ñun ay Sénégal lañ waa soo amu fi fii ñun ñëpp ñoo ko moom Moussa Bocar Thiam li muy wax dara fii wala fii police lépp benn lañ. ñooy bokk ndey ñoo bokk baay waaw. voilà. Karwaanam Sonko riise ko mu wàññi ko waaye le maire monsieur maire. Ah, day génn gars yi Sonko riise ko mu wàññi ko dugaat këram. dafa tiit xam na ne lim jëm baaxul. moom gis na lim jëm gis na dim mbala xamal. démb 22h la génn ba une heure remettre kenn topp mu dëpp dem. démb mi ngi doon caravane fii. démb fii la caravane 21h ba une heure de matin kenn topp ko daal retourné dem këram te daan nelaw fii kenn kenn ko. saa yi nee fii Sonko rek fii ñun ko mun keneen ku dul Sonko. maanaam instant bii nii Sonko yee na ñëpp soo bëggee dégg-dégg instant bii nii jarul wax sax quoi yàlla xam na ko Sonko dafa yee ndaw ñi ñee koo xam ne mënuñoo sax comprendre mais instant bii nii premier rek jomay incha allahu Euh, ma wax la euh, ñuy dugal ay wax yi xeet ak yooyu noonu Sonko kenn gënu koo nekk tukulóor boo xoolee yaa ngi dégg ñoom instant bi manipulation boobu lañ dese quoi ay affaire xeet mais yooyu noonu amu fi ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay man mi wax man mi di wax ak yow sama yaay tukulóor la Kanel fii la dëkk sama papa Wolof la dëkk Touba fii laa nekk di daan sama dole sama famille waaw ñun ñëpp Sonko lañ déggoo li déggoo li ma la Sénégal ñëpp benn lañ ñoom manipulation boobu lañ dese quoi manipulation boobu lañ dese affaire xeet te loolu nag ñëpp ñëpp yow nañ ci quoi côté boobu du pass ça ne passera pas waaw incha allah. dañ koy ñaanal lépp Sonko président. commune leneen lu dul Sonko. mbokk yi dégg ngeen noonu kàddu yi nga xam ne waa Wuro Sodi ñu ngi yëkkati. au coordonnateur Banta Wage qui prend la

Diomaye waaw waaji o waaji o mbaɗi feere yo jippo yo jippo élection yo jippo yaadoo mbaɗu ko ala place moyana ala daw battorde pelega sa jumani comme jina sanna di e galma si ɗum game si ɗum game mbaɗi feere yaadoo ɗakko naane vraiment mi mettema ɗon département de maɗo o fof mi mbaɗi kalaman to ici